colonel maa ngi lay nuyu di la dalal. maa ngi lay sant bu baax yow tam di la fay. colonel Momar Gueye la ingénieur des eaux et yi euh, yoroon tamit li di parc nationaux muy ancien conservateur tey jii ñu wax ci li nga xam ne moom la police euh, daal di jot a saisir mu bokk ci benn phénomène bi nga xam ne liñ koy gis ci dëkk bi bëri na muy braconnage ndax tey jii phénomène bi am na fu mu toll am na benn dayo gi. waaw kii rëbb bu ñu tere mooy braconnage rëbb bu ñu tere. dafa nekk loo xam ni yàgg na fi ndax fépp foo xam ni fii dañ fay aar ay rabi àll mu doon li euh, mel ni euh, fi fu garab yi gën a bari ci ci àll bi nga xam ni dañ koy dañ koy dafa am nu nu muy tëddee mhm. ni fa war a luñ ni fa war a duggee lan lañ fay tere lan lañ fa war a jëlee lan lañ fa war a bàyyi loolu yépp dafa am ci yoon mhm. loo xam ni moom la ñuy wax code de la chasse dafa am ci Sénégal tëral ko tëralin woo xam ni ñëpp war nañoo xam ni ba rab sàngam kenn waru ko fetal wala rab sàngam kenn waru koo rëbb. loolu yàgg na fi waaye am na ñoo xam ni eh, ni ñi ngay ni ñi ngay teree dara nit ki ñëw sàcc ko noonu noonu la mel noonu la mel eh, kon eh, dafa am mbir moo xam ni yàgg na fi. lañ ci boo demee ci ko koba wala nga dem ci yeneen parc yi mm-hmm. fépp foo fi dem di nga fa gis ay nit ñoo xam ne dañuy bàyyi ba guddi ñu yore seeni fetal di di di ñëw di di rey euh, rabu àll ya fa nekk ak yu demee noonu te loolu moom yàgg na fi yàgg na fi lool te ñoo ngi dégg criminalité phonique terme boobu ndax dañoo dañoo bëggoon a xam ndax dañoo criminaliser effectivement phénomène bi. Euh, euh, nguur gi taral na bu baax a baax li nga xam ni mooy daan yi nga xam ne moom lañu ñu war a teg ñooñu di rëbb rabu àll yi ci béréb yi ko teree. Mm-hmm. donc euh, euh, maanaam li ñu lay tëj ci kaso yokk nañu ko liñ lay teg ci daanu xaalis yokk nañ la ko yokk nañu ko. Mm-hmm. loolu yëpp dafa am solo pour euh, loolu wone rek ni nii nga xamee ni noonu la ñu war a aare suñu bopp lañu ñu war a aar rabi àll yi ndax rabi àll yi ñoo ñu na bokk ku ci ne am na loo xam ne lii mooy sa taxawaay ci àdduna bi. moo xam picc yi la moo xam yeneen yi nga xam ni dañu dëkk ci ci ci biir àll bi. Mhm. loolu euh, te boo xoolee ci biti Nations Unies ay bitim réew réew yi nga xam ni danoo dañoo booloo am nañu ñoom itam ay ay yoon yu ñu tëral. yoo xam ni dañ ci dañuy sàmmonte ak moom ngir aar rabu àll yi. bu weesoo daani colonel ndax am na ay jumtuwaay euh, yi nguur gi tëral ngir mu mën a dëkkal rabu àll yooyu waaye it aar waaw euh, yooyu la ñu tuddee parcs nationaux di tuddee ko itam air protégé tuddee ko itam forêt classée yooyu yëpp dañu nekk ay ay ay béréb yoo xam ne yi dafa am yoon wu leen di sàmm ci képp koo xam ne kii da nga da nga Euh, jaarul ci tëralin yi nga xam ne moom la ñu tëral ngir aar mhm. yooyu am na ci Sénégal yëpp boo demee fale ci euh, euh, booru Ndar am na fa parc bi Djoudj. Mhm. nga dem booru Tamba am na fa parc bi Niokolo-Koba nga dem ci booru Sine file am na parc delta bi Saloum am na même fii Ndakaaru île de la Madeleine parc la boo xam ne bii dañ fay aar rabu àll rabu àll yeeg yooyu. Mhm. kon def nañu lu ñu mën ngir. sàmm ay ay béréb yoo xam ne dañ naan nit ñi bàyyi leen béréb boobu ak ñii ndax ñoom foofu la ñu dëkk fa la ñuy euh, jure fa la ñuy nene fa la amee lu ñu lu ñuy lekk. Mm. loolu am na Sénégal lu ci bare war na ci ma am war na am béréb yoo xam ne war na mën ëpp na fukk sax. yoo xam ne ni am na fi ci ci biir réew mi. parc de Djoudj boobule sax manaaw yi nga xam ne ñoo fa faatu bu yàggul tey ji drame écologique boobu lan mooy impact. ah danaa la wax picc yooyu fa faatu ni ñu tudd ñu ngi tudd njagabaar ci wax <laughs> waaw njagabaar la ñu tudd dégg nga. Uh-huh. boo ko gisee picc mu weex la te te te maanaam kii gémmiñ gi dafay gudd. Mm-hmm. dafay dafay gudd picc lay kii lay euh, jën lay dundee. njag njagabaar la tudd loolu tam dafa am feebar boo xam ni day day dal ni ni ñu ni ñu gisee nii corona di ñu dal. Mhm. noonu la amee beneen façon grippe boo xam ni bile day dal euh, maanaam picc yi. Mhm. Euh, lu mel noonu moo leen dal ba gaañ sañu lu baree baree bare waaye bu ñu pexee ba ba mu bañ a wesaaroo maanaam yeneen yeneen rab bi ñëw di di ko di di ci di fa dëkk wala di fa di fa toog ak ñoom. dana fexe danañu fexe ba loolu du du du du wesaaroo. Mhm. loolu ñu ngi ci liggéey Eh, te loolu yàgg naa am waaye itam bu ñu demee ba ca biir rek sunu borom mi nga xam ne moo ko indi daf koy daf ko fiy jëlee. Mhm. te loolu la ñuy ñaan ñun itam sunu corona bi sunu borom jëlee ko fi. moom itam eh, bañ a wasaaroo googule sax fen eh, bu weesoo phénomène braconnage bi colonel gis nañ ne tamit ñi ñaa ngi dagg garab yi lakk-lakk yi ñoo ngi bëri ci gàncax ki tey jii ndax loolu yëpp Sénégal dina ko àttan ba mën a aar yooyu le mala wala sax espèce yooyu le. xam nga ci ñun ñooy am ñooy yar suñu bopp xam ni nii nu bëggee dundee moom la garab yi war a dundee moom la rabu àll yi nga xam ni ñoo ngi nekk ci ci ñu ngi ànd ak ñun war a dundee. Mm-hmm. ndax bu leen suñu borom bindee day fekk ni ñoom dañu war a dund dañu war a ànd ak ñun. Mm-hmm. Euh, tere neewuñu bu leen bu leen kenn laal ci loo xam ne yi moom dara mënu ko dindi déedéet léeg-léeg danañu may doomu aadama mu dund ci. Euh, euh, euh, ay rabu àll wala mu dund ci ay garab wala yu demee noonu waaye ëppal bi maanaam ñëw fekk fenn nga raatale ko ba nga xam ni dara dootu fa saxati wala dara dootu fa mën a di dund mm. loolu la ñuy la ñuy moytu suñu ko suñu ko suñu ko bàyyiwul bu ñu bu ñu bu ñu yàqee garab yi ba garab yi jeex bu ko defee rabu àll yi itam dem seen yoon na nu na ñu wóor ni ñun ñoo ci tegu. est-ce que Sénégal sax am na ay rabu àll yi nga xam ne amatu fi ay espèces euh, en voie de disparition. waaw euh, ñey ñey euh, am amoon nañ ñu ko la ko baax man ma fa nekkee amoon na fa. Mhm. waaye dafa wàññeeku bu baax léegi dégg naa ñu ni ma am na yu benn benn yu ñëw. Mhm. waaye njamala amoon na fi mooy girafe. Mhm. njamala amoon na fi waaye dafa dem ba jeex dañ ko indiwaat dafa am ñu dem jëli ko bitim réew indi ko fii ci Bandia foofu lañu la la boo fa demee daareen fa fekk. Mhm. Euh, am na itam yeneen yeneen euh, xeetu rabu àll yoo xam ni dañ leen a jëlee gaynde commencé na di wàññeeku bu baax a baax waaye am na ñu ko jël indi ko itam ci ci parc pour nit ñi mën ko gis boo demee parc de zoologique de Hann sax di nga fekk gaynde yi waaye boo demee ci àll bi pour nga gis ko dana jafe lool. yooyu yëpp te yooyu yëpp résultat résultat lan la lan moo waral lan mooy conséquence bi. ñun ñun nit ñi ñun nit ñi kese lépp lu yàqu ci àll bi. lépp lu fa dee ñun nit ñi la waaw ñun ñoo mën a yar suñu bopp ñun ñoo war a war a euh, mën a topp li nga xam ne lii mooy yoon yi ñu tëral ñu sàmmante ak moom su dul loolu lépp luy dund ci li nu wër dana jeex tàkk te bu yooyu jeexee ñun ñoo ci tegu man maa la wax loolu. colonel gis nañ sa taxawaay ci lii di promotion làkk olof. xam naa ci dara euh, tey jii euh, sa livre bu bees bi sax wane na ko euh, maanaam yaa ma neex bi ñu bëggoon a xam tey ndax gis nga ay effort Sénégal ci politique gi mu teg ngir nag vulgariser langue bi ak it jëm ci alphabétisation ndax jéego yaa ngi ci. waaw Sénégal def na li mu war a def ndax am na loi ak décret yoo xam ne ni mooy wane ni nii la ñu war a bindee wolof ak nii la ñuy war a nii la ko war a doxalee. Mhm. am na itam direction de l'alphabétisation te man xeet naa seen seen taxawaay ndax dama su ma sañoon danañu leen jàppale yéen journalistes yi rajo yi télé yi pour ni ngeen di bindee mbind yi ak ni ngeen koy waxee ñu leen ci dimbali télé kii bu nekk maanaam euh, rajo bu nekk ñu fexe ba am am benn encadreur boo xam ne bii dafay làkk wolof yu jub mën ko bind di leen di leen accompagner ñi ngeen di amee ay correcteur ci ñuy def journaux yi ak yu demee noonu. Mhm. ñu def lu deme noonu. gis nga jàpp nga ne ñoom ñoo gën a dammati olof bi. ñan ci. journaliste yi. yéen no xam ne xam nga lu tax ngeen di gën a feeñ. Mhm. ndax yéenay wax di wax ak askan wi donc yéen la ñuy gën a gën a gis nga léegi maa ngi lay wax ni la am na benn benn benn benn benn société mhm. boo xam ne bii dañuy bind wolof seen messages yi maanaam seen bataaxal yëpp dañu koy bind ci wolof dama leen di bañ a defal publicité di leen tooñ mais vraiment euh, ñoom dañuy góor góorgóorlu am ci boo teetee rajo yi aussi ak télé yi RTS ñuy góorgóorlu di ci loolu. Mhm. ñeneen ñi dañuy bind lu bon nga yónnee leen message wala nga woote wax leen nit ñi kenn du ko bindee duñ la faale sax. xam nga loolu day yàq askan te ñun suñu suñu culture culture mooy mbatiit ci wolof. bu la bu la neexee tam nga ni nga euh, aada ak cosaan rek waaw boo bëggee yombal mhm. <laughs> dégg nga nga ni aada ak cosaan li li nga xam ni moo koy dékku mooy làkk yu ñuy làkk mu mën a doon nag moo xam pulaar la wala mu xam mandeng la wala wolof wala leneen bu ñuy wax wolof toujours nit ñi dañu yaakaar ni dañu bëgg puus wolof rek déedéet man ñoom làkk yépp laa bëgg ñu respecté leen euh, jaaral leen ci yoon di ko bind mbind mu gën loo xam ne nii boo doon bu doon tubaab euh, ni nga koy ni nga koy maye ni nga koy wormaale nga wormaale ko làkk wi nga xam ne moo yore sa aada ak sa cosaan. te ba loo jàpp ne mooy solution bi kon. yéen ngeen góorgóorlu. ñu góorgóorlu ah. sànq yaa ngi ciy ah, donc euh, direction des langues et de l'alphabétisation. waaw seen taxawaay ñoom itam taxawaay ànd ak yéen yéen itam ngeen nangu loolu. bu ko defee ku ci nekk rek def sa liggéey bu ko defee lii nga xam ni moom la ñu yàlla baaxee mu nekk suñu làkk nga xam ni ñëpp ci liggéey mm-hmm. ah, ñoom maam Younouss Dieng ñoom ñoom euh, Cheikh Anta Diop dégg nga ñoom Aram Fall ñoom euh, Cheikh Aliou Ndaw ñoom ñëpp liggéey ci liggéey yu am solo mm-hmm. ah, dañ ko war a ormal ngir lii nga xam ni moom lañ fi nar a bàyyi ëllëg ñu mën ko bind buñ ko fi bindee ñi fi nekk mën ko jàng. Colonel Momar Gueye merci beaucoup. jërëjëf.